toit de véhicule bu mu wax xam nga tey jii li ñuy wax de la sécurité Aïcha quand tu entres dans l' application commande. Mm-hmm. quand on te donne les identifications tu as ci mm-hmm. tu as le véhicule tu as l'immatriculation des fois am tu as la photo ci chauffeur bi nga xamante nii moom moo lay moom moo lay jël si donc là le problème du choix du véhicule ne se pose pas te jii si le véhicule ne te convient pas tu peux annuler et faire une autre commande donc foofu laay waxee mais tey jii gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga Mamadou euh, lu am rek il faut faudrait que ñu bañ cee demee émotion xam nga àdduna dafa toll foo xamante nii tey jii dañoo nekk dans l'ère de l'ouverture nit ñi dañuy tijji. yow nga bëgg a wax ñoom dañuy siisu. waaw non non si c'est pas siisu la parce je pense pas que ni siisu war na cee mën a am parce que quoi qu'on dise Sénégal ah on est fi lañ nekk fi lañ juddoo fi lañ jàngee fi lañ yoroo fi lañ màggee mais tey jii booy xool. avantage bi nga xamante ni tey jii kat plateforme yooyu am nañ ko ci réew mi mais résoudre na un problème bari ci chômage bi tey jii ñaata jeune ñoo toogoon seeni kër. et y a pas que des Sénégalais loo non ça ça ça loolu loolu dinaa ci ñëw loolu dinaa ci ñëw mais tey jii xam nga tey jii dafa foofu mënuñ ci wax lu bari. Mm. parce que de cette même manière là que ces étrangers là sont ici di fi daan seen doole nekk di liggéey ci am secteur yoo xamante ni mooy rural de cette même manière là boo génnee Sénégal ay jeneen yeneen sénégalais yoo xamante ne ñu ngi def les mêmes activités et suivant les mêmes tey jii bu fekkee gën a kat bu ñu ko ko bañal ñële mm. donc kooku bu ñu nañ ciy demee rek sago bañ cey dugg ci stigmatisation euh, wala ci loo xamante ni mooy rural beneen bi mooy bu fekkee secteur boobu kat tey jii mu ngi ñëw ça génère de l'emploi ay nit ay jeunes yu bëri comme je te l'ai dit tey jii nit ñu bëri toog nañu ils avaient leur permis. il faut respecter la loi ah, aussi. waaw mooy ce que je disais non ce n'est xam nga tey jii mënoo la loi. mënoo ni mbedd la euh, jaay. loolu c'est bien. xam nga mooy li ngay wax sànq damaa ne. ñun tey jii lépp loo xamante ni ñu ngi koy def ñu ngi koy entreprendre on est en train de demander des audiences au niveau du ministère on va rencontrer le directeur du transport et même le ministre ñun on demande que le secteur soit assaini et gis nga Maodo je te rejoins je suis parfaitement d'accord quand tu dis que nii parce que ñun nii cette cette situation là ça nous met bu fekkee da nga bëgg ñëw si la la la la le secteur est ouvert à tout le monde amul contrôle amul amul réglementation. ku ñëw dugg amul ku ñëw dugg. lan a exemple. pour que tey jii ñu toog autour d'une table. ñu jéem a xool comment faire pour que comme ce qui s'est passé partout dans le monde. Mm-hmm. tey jii àdduna bi foo dem rek. les VTC. bi ñu ñëwee c'était comme ça avec les taxis dañuy jo échauffouré dañuy dem parti pata mais à fin li ñuy def mooy toog autour d'une table jéem a xool comment faire pour que tey jii taximan bi nga xamante ni mu ngi liggéeyee ki se sente au même niveau que le chauffeur bi nga xamante ni il est dans le privé et ça peut se faire. mooy le mooy xam nga tey jii man je suis sûr que ni je suis sûr que ni ñun tax par rapport aux taxes li ñuy joxe ci taxe ñoom fay ñu ko. quand il te parle de la ñu koy verser à l' assureur. Mm-hmm. moom koy verser. Mm-hmm. la quelle mais mais mais ñoom yow su fekkee ne par exemple da ngay def commerce parce que li ngeen def commerce la mais ngeen def commerce boo xamante ne yéen camouflé wu quelque part parce que kenn xamul ba xam yéen position ngeen ngeen nekkee. camouflé camouflé ça ma expliqué la c' à dire mën nga gis oto boo xamante ne mënoo xam ba xam taxi loolu du taxi ça c' est un problème. mënoo secteur bi mënoo identifier kuy taxe lu taxe un deux yaa wax da ngeen di fay da ngeen fay tax mais yéen tax yi ngeen di fay ay tax mën nañu wax bu fekkee ay taxe la sax indirectement ngeen di fay alors service de l'État yi xam ñoo gérer transport ñu fay foofu mais loolu moom moo gën a moom moo gën a légal mais c'est ça mais c'est pas euh, euh, xam nga tey jii pour que ñoom ñu mën a fay ces tax la pour que ñoom xaalis suñu xaalis di mën a dem ci di jóge ci ñun dem dans la caisse de l'État il faudrait que moom fu mu jaar mais tey jii je te je te quand tu dis que ni par rapport à l'organisation organisation. xam nga tey jii tu m'as demandé la question à savoir qu'est-ce qu'on attend tey jii au niveau des autorités. mooy lan xam nga tu as parlé de tu as parlé de de de de camouflage y a pas de camouflage xam nga tey jii yow li ngay woowee camoufler mooy. pourquoi les plateformes sont ouvertes à toutes sortes de véhicules. tey jii kër sa véhicules yi aussi mënoo ko identifier. waaw mooy la moo xam nga tey jii bu fekkoon da nga lire xam nga récemment Macky Sall avant que mi mi def sa passation il avait signé un décret. Mm -hmm. portant sur la réglementation du VTC au Sénégal et ce décret la vraiment a réglé l'ensemble des questions yi nga xamante ne moom ngeen di posé nii tey jii je pense que ni si son mandat avait été renouvelé tey jii on serait on ay ci nan comment faire pour réglementer le secteur la ñu toll. ok et nous pensons que ni ce décret-là vraiment va suivre sa route. danañ jéem a xool comment faire pour que nu organiser le secteur et ce décret là prévoit ces questions là que dont dont tu fais allusion. Mm-hmm. par rapport à la reconnaissance oto bu romb bu fekkee def transport dina am benn insigne boo xamante ni tey benn vignette boo xamante ni. moo mooy mooy permettre ñu identifier que ni kat kii kat c' sa particulier mais commencé woon ma tey jii mooy li ma wax. gis nga ñun amuñu ku ñu gën a bëgg ñu réglementer le secteur mais ñoo man dama bëgg a xam seen question maanaam seen inquiétude lan la. pour que pour que hmm. ñun ñu. ñu écraser ñu dem ñu nax saay forêt suñu bagage soit ñu dem jëli gaal gi wala ñu defi leneen wala ñu réglementer ñu au même niveau que vous. Modou. moom la posé question bi.